ku doon laajte faali ngooy yegsi na dëgg la képp kuñ fi doon jiiñ borom jaaro bi nekke doonoo ko dañ la doon naax ponkal maa ngi kookan la sëriñ du borom jaaro bu baax bi bu efficace bi jaaro bi nga xam ni boo ko takkee sa wërsëg yépp ay ubbeeku ñàkk tàggoog ak yow ba faw maa la ko wax sëriñ moodu borom jaaro bu baax bi Sénégal xam nañ ko de waaye diaspora bi moom rek la waxtaanee maa la ko wax ki rasulilaay sëriñ moodu borom jaaro bu baax bi listixaar ak seet moo ci toog day tàmbar say mbir te moom la wax jàppal bayre bu kenn dut naa table mag ñi xam nañ ko ndax moom rek la ñuy jëflanteel ak bayre boo munti xalaat mu ngeek moom ay nomba kéemaan nomba yoo xam ni kaaraange moo ci gaaw ay nomba yoo xam ni boo ko takkee sa ndigg lépp lu la nar a dal sa yaram da koy sentir assurance la lii di nopp bokk na si ay maninam képp koo bëgg ba yaakaar ni mënoo see jot bul hésiter seet si ko gaaw yow mi bëgg tukki wala nga nekk Europe bëgg a ñibbis wala nga am jafe-jafe kayit mbir dëgër lool ba neexal la seet gaaw Serigne Modou borom jaaro bi mu assuré la ko faiblesse sexuelle hémorroïde bu nëbbu ak bu làkku nit ki amel la bor bañ la kaa fay moo ci gaaw Serigne Modou borom jaaro bu baax bi fekk ko gaaw Dakar Kër Massar robinet Malika Montagne Touba Daaru Marnaan ancien garage Dakar bi Kaolack terrain Boustan wala nga woote ci 76 244 36 40 77 981 69 29 Serigne Modou borom jaaro bu baax dëgg dëgg yaay taalibe Serigne Saliou bi loolu laal mu am barke. ini. Ayo ndak wale. Ayo yul. Asofis. Eh. asalaamaaleykum Sénégal yi asalaamaaleykum axlul lamb kilifa diine kilifa aada yi Mourou Mbaye Mourou Mbaye dajal sa bekk bëri nga wax yow dama tegoon ko xam lamb nga mais xamoo dara si yaa ngi dégg yow ba léegi yaa ngi téye sa gémmiñ gi di ndekkee bay naan waruñu jox Modou Lo meilleur lutteur wàllu TV dañoo tàppeen Modou Lo moo tax ñu jox ko meilleur lutteur que dañuy liggéey ak jàmbaar yow Mourou Mbaye wutal koo liggéeyal wala fekkee xaalis bu baax bi moo lay wax loo di la goxe loo noonu noppi moo gën yow boo doon lim sax nga lim ay gaynde mais yow limoo ay gaynde ay dur saane ay njaga doole comprendre ay ñi ngay lim ay signal lañ ak ay kaña may wax nga ciy teg unku muy kiriku si ay dégg Modou Mbaye da ngay tëj sa bëgg xamante nañ man yàgg nga ma interroger xam naa c'est pas Modou Mbaye qui parle c'est ses joints qui parle li ngay jël moo lay wax loo dama bëgg nga nga noppi nag tëj sa ay dégg parce que yow ki fi jàpp Ama tër ko jàpp fi booy ñaar tër ko ñaari booy gën a os ci làmb ji mu jàpp leen tër leen nga ne nekkul meilleur lutteur da ngay jéem loo organisé si yéen a ngi dégg parce que yéen a ko nangul seen si yéen a ngi dégg bañ fi organisé tampul leen kenn waxu ci yéen ñëpp ay seydaane ngeen yow buur géwél yéen ñëpp ay seydaane ngeen si yéen a ngi dégg dama ngeen noppi ngeen bàyyi Modou Lo ngeen bàyyi Jambar production li TV dafa wane liggéeyam def ko si yéen a ngi dégg kon bu leen ci siisu noonu la demee tëjal sa bëgg nga noppi Modou Lo il est le meilleur lutteur de sa génération il est le meilleur lutteur il est le roi des rois te incha allah couronne bi fii lay des loolu mooy bor seen xol couronne bi yeewoo parcelle ñun ñëpp da ngeen di noppi ñun ñëpp daf leen leen neex mais yàlla du noppi ne démb tey soog a ñëw doo leen dërëm silence noppi leen không